من تماد محمد وهو أحمد بسم الله الحمد لله الذي بجلاله تم صالحات الحمد لله على كل حال subhanaka la ilma lana illa bima allamtana innaka antal alimul hakim saadi lisaani nawir janaani saafi amaani wasid baraay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi ak wëllëre yi af waaye mën a nekk ci àddina si di nu seetaan noo ngi dellu siwaat ak yéen suñu émission bi ñu tuddee jàmm du fii ci Prestige TV ngeen ànd kook Cheikh Ousseynou Sy Naaru Borom Touba seen xarit seen soppe di ñaan suñu borom yàlla nañu yàlla defal jàmm ci réew mi def ko ci àddina si yëpp ci barke Seydina xam saa sallam te it ñuy siyaare bu baax a baax sëñ ba Bachir di ko ñaan mu yàgg fi loolu te wér ak ki nga xam ne kii dégg maam mooy sëñ Abdou sëñ Modou Mbend Fall dégg nga ak mbooleem dégg maam Baye Fall yi mbooleem dégg maam Murit ak Xaadir ak Tijaan ak Laayeen salsali dabaaxi wahabit ak ñaseen dégg nga temps bi moo xaw a kii moo tax ñu tënk ko waaye tey jii dégg maam danoo dellusiwaat ak yéen ci di sant itamit de nga ki nga xam moy borom télé bi di pap Doumbia di ko ñaan yal na ko guddal fanam wéral ko naal bi mu naal yal na ko may mu àggale ko jamm ak salam ndax mom diiné ak aada ñepp de maam kenn ku ne dalay taxaw taxaway bo xam bu am solo kon suko ko defee ngi sant tam wa régie de nga ñi nga xam moy mooy El Hadj Sène dégg nga ak Moon Ndiaye ak ki nga xam mom moy mooy Satirna Ndione Modou Aïssa de nga ak mboolem wa Prestige gep bayiwunu kenn tay nak njabot gi rek comme ni ma len ko waxee ñom la dalal dégg nga ci bis buy ñëw dégg maam kenn ku ne xam na ne poroxaan a ngi ñëw dégg nga xam na ni tamit dégg maam ah, wax naa leen keroog le 6 dégg maam moom la ñu ubbi dégg nga ki nga xam ne mooy université bi ah, mun taxa Bachir wax na ko moo tax mu ne wootewul ndax diggante ñaari ñaari màggal la mooy poroxaan le 2 dégg nga ak Kazu Rajab le <coughs> kon ah, su ko defee léegi yàlla dafa def suñu mbokk taalibe suñu xarit di suñuy doom di suñu lépp dégg nga ñu taxaw bis bu rëy dégg nga mooy kennal Serigne Touba dégg nga te kenn ku ne xam ko ci rond point Normandie at mu ne ñu koy def tey yàgg na dégg nga te incha allah dinañ leen wax dégg nga nu ñu koy kiyee ñoom tey ñoom laa dalal muy Aline Souaré dégg nga ak boole mi nga xam ne dégg maam ah, moom la àndal ku leen gis xam ne ñoom dara ñor leen du Serigne Touba rek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 yaa sayyidi yaa rasuulallahi yaa sanadi inni ilallahi tubtul yawma min dadani barakatul lasil wujud wal xidam xad wajabal law lanaatu min xidam subhaana sil baqaa'i wal muxaalafa man xaadani amnan bila muxaalafa ملك الذي القيام بنفس وجاب لو إلى كليتي خاد لجاب الحمد لله تعالى ودا كما له الخمسة والوعدا لمن له القدرة والإرادة والعلم ما آياتي بعدا لمن له السمع كما له البصر مع الكلام كل شيء ونسر هو تعالى خادر مريد هو تعالى خادر مريد هو تعالى خادر مريد وعالم أين والفريد الله ربنا سميع وبصير ومتكلم وجاد بالقصور لم ينخط عدم ولا هدوس ولا فناء للذي من الحديث رب الورى رب الورى رب الورى رب الورى أنا كسب سيدنا محمد رب الورى ليس له تماثل ولا ابتخار بل له من ماثل عمدي لباخ جل عن تعددي وعن توالد وأسلم وددي ملكنا لم ينو أيس أو كرا خط له وليس ينكرا عمد من جال وموت وسمم لم تنه وقد كفاني الخمم عمد من جال وموت وسمم لم تنه وقد كفاني الخمم عمد من جال وموت وسمم lam tanoo waxat kafaaniyal xumam daf nañ ko àddee borom Tuubaa ok jërëjëf jërëjëf sëñ Ibrahima ah, jàng mi la am na solo su ko defee rek dégg maam loolu lañuy ñuy ubbee mooy xas di sëñ Tuubaa waaye damay bëgg a jox sëñ Aliou Souare rek nga xam ne rek moom it mu daal di nuyoo nuyoo boo xam ne bii day gàtt rek te duggaale ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi ndax temps bi moom daa xas dem ba pare kon bisimilah sëñ Aliou. salaamaaleykum mbokki àddina ñu ngi nuyu uh, borom rajo bi ak borom télé bi yëpp ñu ngi leen ziar di ñaanal seen dund yaa gi mu ànd. amiin suñu borom yàggale ko. Uh, di ziar Serigne Saliou Touré. moom fi toogal borom Touba. ak waa kër gi yëpp. rawatina Serigne Cheikh. moom Serigne Saliou Touré. mu jotale na ko ci mboolem njaboot gi. di ziar mboolem kilifa goo xam ne ñu féete nga ci dëkk bi. février la. Mhm. waaye nag ñu ngi ko ànd ak kilifa yi nga xam ne ñoo féete fii. Mhm. ku mel ni Serigne Cheikh Lo bu Loyenne Madina Fall. Mhm. ñoom ñi nga xam ne ñooy taxawee guddi ku mel ni waa kër Cheikh Modou Kara Mbacke Noreyni. Euh, suñu Moustapha Fall Kara. guddi àjjuma bi mu koy taxawee. samedi bi nag mboolem daayira boo xam ne féete nga Thiès. wala lu ko féete ñu ngi koy ànd ak ñoom. ruskat yi bis boobu nag ñu ngi xam ne mu ngi amee ci ndigal. seize kon ren bis bu nekk onze février rond point Grand Thiès bis boobu nag lenn rek mooy sabab bi mooy yëg gi nga xam ne nii dongoy Sëñ Tuubaa yi dañ koy yëg seen diggante ak sëriñ bi suñu sëriñ bi mu nekk kenn moo waral digal bis boobu nag ñu ngi xam le ni mboolem kilifa gu nekk Thiès ñu ngi koy ànd ak yow ku mel ni sëñ Lamine Mbacke moom Serigne Mbacke Madina ku mel ni sëriñ Xaadim gay Gaydal borom daam ku mel ni Serigne Nasir Dieng ak mboolem kilifa yoo xam ne rek yaa ngi ci dëkk bi ñu ngi koy ànd ndax bis bi ñoom ñooy eh, soldaaru Serigne Touba yi di di sëtu yi nga xam ne ñoo ne fii kon mënuñoo dem bàyyi leen ci ci liggéey boobu ñu ngi xam le ni bis boobu ñu ngi ciy woote ci mboolem daayira boo xam ne yaa ngi ci dëkk bi di ziar tamit sëñ am Amsatu Mbàkke moom Serigne Sohaibou ndax kenn mënut a wax xasida tax bis boobu bisub xasida la ndax bu ñu xëyee dañuy jàng alxuraanul karim niñ ko sëñ Saliou joxe woon ndigal bu paree ñu durus kuréel daal di waxtaane sëriñ bi ñu ngi xam le ni suba gi tamit bu ñu jullee fajar ba pare nuuru daareeni bi waa kuréelu nuuru daareeni bi ñoom Cheikh Cheikh sëñ Cheikh Bamba ñoom sëñ euh, sëñ Fallou ak ñi àndal ñëpp dañuy taxawee nuuru daareeni bi saa bu ñu jullee fajar la ca topp mooy am na bindum xasida ndax dañuy wax ni sëriñ bi mbindam bi moo ko gënal lu mu am am na baas boo xam ne nii li ko wundu leen rek la mooy bindal sëriñ bi xasida kon loolu la ñuy laytaaye di ko tàmbalee ci liggéey boobu ba kër ñu jotaat kàddu gi barkeeg borom Tuuba. jërëjëf sëñ Aline kon euh, dégg ngeen euh, kàddu gaa ngi noonu. doon jotal. Euh, kon nañ ko waajal bis bi bis bu mat a waajal la dégg maam. ndax kenn sëñ tubaa dégg maam gaawaat ñëpp waaw kon su ko defee rek xam naa damay ñëw. dégg nga sëñ Bolle moom tamit dégg maam mu wax nu ñu indil ci bis bi bisimilah sëñ Bolle. bisimilah barke borom Touba. ñu ngi siyaar comme ni ko jëwriñ waxee di siyaar mbokki taalibe yëpp rawatina sëriñ Muntaxa ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ndax ak yàggam fii sunu tawféex la. te sunu njariñ la. ndax ku ne xam na ne sëñ Muntaxa ni ko sunu boroom jagleel ci ay mbir. ci jamono ji ñu toll bu fi nekkul woon dana ñaaw kon ñi ngi ñaantu suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér mm-hmm. ak euh, murit yi ko sëriñ bi booleel yépp ngir ñu ànd ci liggéey borom Touba boobu di santaat bu baax a baax nag ci jotaay bi nga ñu dalal tey ngir ñu fësal ci liggéeyu borom Touba bi nga xamante ni comme ni ko jëwriñ waxee am na fukki at ak benn juróom benn ci ren mm-hmm. mu doon liggéey boo xamante ni du liggéey bi doog a tàmbali waaye du liggéey bu dëggu doomu du liggéey bu cete ndax dañ fas yéene nañoo ci suñ digganteek sëriñ bi ñu koy ñu koy liggéeyal liggéeyal boobu ba keroog ñu koy fekki kon dafa mel ni ci loolu ci lañuy ñuy wéyal euh, di ko taxawal bis boobu saa suñ ko suñu borom bi maye ñu fekk ko ñu taxawu ko nañ ko war a taxawoo ci ndigal lañ ko tàmbalee ci ndigal lañ ko fas yéene jëfe kon looloo waral bis bi di doon lëf fukki fan ci wéru février ak nyuko ñukoy djublu légui nga xamanteni ginnaw comme ni nga ko ginnaw poroxane gi lay doon ndax poroxane gi mom lu toftoolu ci mom dafa mel da ngay neugani kon bu soxna jaaré wéso rek ñun ñi ñew ci wétam daal ci fédalé bis bobu nga xamanteni jaglélu ñuko kenn ku dul ki nga xamanteni mom la ko suñu borom jaglél muy kenn borom Touba gi mu maté ko lol nak mbokki talibé yi di ci gor seen kemtalay katan ba bis bobu nako ko sëriñ bi bëggé mu démé ni ni mel ñu koy jéem suñu kéemtalaay kàttan ngir mu doxe ko maam lépp day yem ci sëriñ bi bisub kennal borom tubaab moom ku ne xam na ni ci sëriñ bi la war a tàmbalee fa la war a yem ci loolu nag lañuy def ay jéego euh, saa su ne ñuy ñuy jéem a dugg ci biir sëriñ bi te bañ caa génn loolu mooy waral bis bi mooy sabab bi comme niñ ko daan taxawee daaw ñëwoon nañ fi ren suñu borom def ñu fekkewaat ko yàlla nañ ko fekkee ay at yu baree baree bare bare suñu borom gën la fee yàggal yàggal fi bërëb bi ba lépp lu ñu yéene ngir jëf ko sunu boroom mottali ko kon xam naa ni loolu la ñuy am lu ñuy sof ci kàddu yi rek ba ci kalam ak jàmm barke borom Tuubaa ok jërëjëf mm. kon euh, wax dëgg yàlla dégg ngeen kàddu gi leer na waaw su ko defee rek dégg nga dañuy damay ñëwaat ci Ibrahima rek mm-hmm. dégg nga soog a am yu may jàlle Ibrahima xanaa lu gàtt rek ngeen nga indi dégg nga waaw bismillah waja لخير من بها وجار بها لخير من بها تعلق أزن يلاخل أقبيا أكرام ربي نجونا من نخم باخ خما نفهم الدنيا وأخرى نافه بما بي تاتيم المنافع نجاهم الباخ من النيل من النيران دنيا وأخرى ومن الخسران هرب كل من لو سخاوة إلى سواي ولي ولي التلاوة وجاء ربيا لهم بالانتهاء بعد الممات بعد الممات كل خير نساء لكل من بيا تعالى خنجا من قدر الدنيا وفي يوم نجا كل مريد كل مريد كل مريد كل مريد كل مريد فلنين ما قال قصائد كل مريد بيلوس يصعد وإنه من الأسى مبعد تعب زيدان عن خنبسوال بجاه من إليه وجاء النزول أكرم ربي كل من تعلقا بيا وكل بأمر ألقا بيا تعلق الذين أسلموا من جن أسل دون من لم يسلموا علي من الله سل جلالي بعصمتي من در الإدلال زاد سياتين إلى إتردا بذكره ولمنا يسردا يقول للقرآن يقول للقرآن قرآن قرآن يقول للقرآن خودا لم يكن لخير الدهر وخادا ليكن زد سلادا وسلاما وسنا لمن به دري لخير سنا آمين يا رب العالمين jërëjëf jërëjëf tubaarkàlla njàng mi am na solo yàlla na yàlla wéral sa baat bi ci barke Cheikhul Khadim kon su ko defee rek dañuy wax ne inna lillahi inna ilayhi rajiun dafa am sunu mbokkum jullit di taalibe di ku baax ñu tuddee ko Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye di gendarme ex gendarme ba pare nekkoon docteur di xarit dégg maam maam Biram juuf dëkk ci parcelle yàlla dafa def dafa wàcc liggéey démb lañ ko denc dégg nga tey jii lañ koy defal sarax dégg nga maam Biram juuf dégg nga da ko ànd ak mboolem gendarme yi dégg nga ak mboolem dëkkandoo yi ak imaam ya fa nekk ñoom ñépp dégg maam ah, ak bokk yi xanaa di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana bi saay Seydou Sow dégg nga te foofa euh, ki nga xam ne kii mooy soxna bu di soxna maam Birame Diouf dégg nga ak moom jung googu la dëkk waa jung yëpp taxaw nañ ko taxawaay bu rafet dégg nga maam jël nañu kaamil yi wàcce nañ ko dégg nga maam wax dëgg yàlla ñaanal nañ ko mu nekk nit ku baax koo xam ne ku jullite ku ragal yàlla ku jaam yàlla ku bëgg xam ne te xamoon bisam bi nag yëkkati woon 400000 jox ko Birame ne ko dégg nga damaa bëgg nga jëndal ma jënd ci nag pour sama dëj dégg nga wax ay soxnaam tàggu leen kooku dégg nga maam loolu nit ku yàlla baax rek moo ko mën kon yàlla na ko yàlla xare àjjana Moussa Seydou Sow ñoo ngi koy euh, wu nag mboolem bokkam yépp bi ci des mooy dégg maam soxna nday jong daa bokk ci daayira dégg maam maam jaara ak nimat ñi na ànd kook Aline dégg maam ñoom Aline Mbay ànd kook Baye Saliou Ndiaye dégg maam ak ma Masamba ak mboolem euh, waa waa kuréel gi yépp ak soxna nday Diouf mi nga xam ne mooy jëwriñ dégg nga ah soxna Ndeye Jong nag woy juróom Basiiru Jong dégg nga moo wàcc liggéey dégg nga ca njaareem ah démb la wàcc liggéey xam naa ne ñu ngi nekk dégg maam ci kee ko di ko di ko massawu di ko jaale moom it ndax jàmbaar la dégg maam ci dayre bi te waajaloon poroxaan itam wax dëgg yàlla waaye yàlla na yàlla xare ko àjjana bi saa Seydou Sow ñoo ngi koy jaale ñëpp dégg maam waa nimat rabbil alamin ak deg maam sok maam jaar ñom ñep deg maam ñong koy jaale dégg maam waajuram wo wacc liggey de nga di di ko jaale sëriñam bobu deg maam ah di góor saw kon su ko rek de nga loolu lañ doon jallale waye di leen xamal itamit de nga dafa am sunu mbokk deg mam maam euh, bu baax bu ñuy wax ma njaay borom dalal bi presta de nga xamne euh, mom yalla defna defna ñaar fukki at dégg maam ci liggéey boo xam ne bii mooy liggéey boobu muy def dégg ñu koy war a sargal fële dégg maam ci euh, fi nga xam ne moom mooy euh, artisanat dégg nga foofu lañ koy defal dégg maam sargal bi dégg maam incha allah le neuf lay doon waaye mu ngi ci woo mboolem xarit yeeg wëllëre yi dégg maam am na moom li nga xam ne moom la taxawal ci ay projet ñu di ci liggéey bari na trop dégg am na ay maanaam transporteur la wut na dégg maam ay auto école ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yëpp dégg nga da koo kii waaye mu nekk nit ku baax di taal bi Cheikh na Cheikh Saad bu dégg ànd ko nag ak ay rakkam dégg nga Cheikh Saad bu Ndiaye dégg ak mbaar Ndiaye dégg ma ñaanal way juróom yàlla na yàlla doole leeram bu góor waaye yaa Kamara Ndiaye mu ngi fi dégg ma yàlla na fi yàlla yàggal dégg loolu tamit dégg nga ñoo ngi koy yëgal ñëpp dégg bis bi incha allah 15 heures tàmbali dégg nga waaye am na cocktail yi tamit boo xam ne bi dégg bu noppee dana ko def dégg ma mboolem kilifa yëpp dégg ma ci daje incha allah bis boobu kon su ko defee rek dañuy daal di jàll dégg ma ci ki nga xam ne dégg mooy sëñ Aline mu tënkalaat nu dégg ma ci bis bi dégg mooy kennal sëñ Tuubaa bi bismillah Assalamualaikum kon eh, ñu ngi ziar mbolé mbokki talibé yi eh, di di di fatali ba tey bis bi eh, ni mu ngi am 11 février rond point Normandie Grand Thiès bis bobu nak lenn rek moy sabab bi moy ki nga xamni ni mo ndar kep jamono muy kenn ki muy ku tedd ki di ku mag ki di Ahmadul Bamba khadim rasoul di Cheikh ahmadul Bamba khadim rasoul mbolem ko xamni ni am nga dara ciir ci yalla yaa ngi yëg sa diggante ak moom ber gi nga xam ne suñu borom ber na ko ci léppam rawatina ay jëfam loolu nag la dongo yi di taataan di ko yëg ci at mu jot ba at mi saa bu jotee dongo yi dañuy am beneen yëg-yëg boo xam ne day bees tàq seen diggante ak sëriñ bi ndax sëriñ bi ku ne xam na ni sunu borom moo ko ber ci coobaree boppam mu doon kenn ca moom ndax wax na ni ca xadim lañ ma tuddee ahmadul xadim loolu jiitu na aadama ki doom kon ber googu ca la ñuy barkeelu ci ndigal li nga xam ne ni sëñ Saliou joxe na ko mbooleem dong buy yeewoo cees ni bis boobu kon bu ñëwee nañ ci jàng alxuraan jàng jàng ci xasida turus ci kuréel ci waxtaane ci borom Tuubaa kon ñi xam ne bis boobu loolu dongoy laytaay bi kon moo tax ba ñu ngi koy woote mboolem fu murit nekk te yeewoo ci goxu suuf bi ak foo mën a féete woo nañ la ci bis boobu ngir ñu ànd ko defal ko sëriñ bi ndax yëg-yëg boobu murit buy yeewu rek moom nga am mooy Sëñ moom kenn ba tax na dañ ciy defar ay nataal yoo xam ne dañ koy darajaale gis bi muy Ahmadou Bamba kenn lañ di ko barkeeloo ñaar fukk ngir bëgg oto yi ak moto yi jakarta yi bitig yi foo romb sa xel dem ci ni Ahmadou Bamba moom kenn moo nekk na le gis oto yi di ko romb moto yi jakarta yi ngir benn objectif rek la am mooy bëgg rek Ahmadou Bamba kenn dañ koy laytaay tamit bind xasida topp ko ba mu ñoŋ ñu defar ko ba mu murite ñu dem ci mbokki taalibe yi ni leen bis baa ngi noonu te agsi na te xam ni xam nañ ne am ngeen ci yéene def seen ñaq waaye jaarale leen ko ci xasida yi mooy ñu wecc ko xasida yi am xasida gi ba pare seen ñaq dugg ci liggéey borom Tuubaa boobu ñuy xam ne bis boobu dongo yi rek ñoo ko defal sëriñ bi li muy yaatu yaatu li muy màgg màgg dara génn ci dongo yi Sëriñ Tuubaa yi ñoo ci daw ba dee ngir bis bi ñoŋ ngir bis bi jag kon ñu ngi koy fàttali ne bis bi nu mu mën a toll dong yi la kon ñu ngi ci tàllal loxo mbooleem daayira fu mu mën a nekk mbooleem murit mbooleem ñi nga xam ne ay jullit lañ mbooleem ñi nga xam ne ay mbindeef lañ sax woon nañ leen ci liggéey borom Tuubaa boobu ndax ñoo ko bokk ngir bis boobu kat dong yi rek ñoo koy defal sëriñ bi waaye ñuy fàttali ba tey nag ni bépp kilifa boo xam ne yaa ngi ci gox bi wala nga génn ko ñu ngi koy ànd ak yow rawatina sëriñ Moutara Mbacke moom sëñ Modou Fati Xari ñu ngi koy ànd ak moom ak mboolem kilifa gu yewoo ci gox bi suuf wala nga génn ko dem nañ fi ba Touba sëñ Ablaat Abi Mbàkke sëñ sëñ sëñ sëñ Bas Zubeyru Mbàkke borom daaru almuxti sëñ Aboo Mbàkke mboolem kilifa goo xam ne nii jote nañ ci dem nañ ba ci yow yaatal la bisu borom tubaab yi ndax ñoom ñooy sëtu sëñ Touba kon buñ naalee bis bi jot nañ ñu dem ci ñoom xamal leen bis bi ni leen agsi na ñu ngi ciy sàkku seen ñaan ngir ànd ko yéen barkeeg borom Touba. jërëjëf <laughs> jërëjëf. kon su ko defee dégg ngeen dégg ngeen sëñ Aliou dégg nga ci kàddu yi ak woote bi woote bi nag moom dégg maam mooy ñëpp rek dégg maam fu waay mën a nekk rek na nga ñëw dégg maam ci bis yooyu dégg maam ñu taxawal kennal Serigne Touba te xas yi dégg maam Serigne Touba dégg ngeen dafa wax ne karaamati xattu yet di bilaa xulur sama kéemtaan mooy sama bindu loxo ci lu amul benn woro dégg nga kon nañu góor dégg maam ba ñu mën cee ñëw incha allah ci kàttanu yàlla su ko defee rek Euh, temps bi daanaka dafa dafay jeex waaye dafa am sunu doomu nijaay <coughs> bu nuy wax dégg nga Abdallah Jaxate dégg am rakkam bu ñuy wax wëddu jaxate ñooñ samay doomu nijaay lañu wëddu jaxate nag nekkoon nit ku baax di rakkam wàcc liggéey dégg nga doomam bu jigéen bu ñuy wax Tina moom la lañu maye woon dégg maam ki nga xam ne kii mooy doomu Meyluda te baayam tudd Muhammad waaye ki ñu ko may mooy Zeyd moom lañ tuddee woon Zeyd Jaxate dégg nga yàlla def nag mu am doom ñu ko doon génte dégg maam xanaa ba démb rek ah mbokk yëpp teew ci dégg nga Abdoulaye woote ci dégg maam ñëpp teew ci ndax rakkam ji jiitu te ku baax la dégg ki nga xam ne kii mooy Abdou Aziz bu Abdourahman Tilala la dégg nga yónni na rakkam dégg nga fàllu ñëw na ànd na ak ay taalibeem ñoom ñëpp ñëw nañu dégg nga mboolem xarit yi ñoom Saalum ak ñoom ñëpp dégg maam Euh, minaat listun dégg maam ak ki nga xam mooy miina ja faal ak dégg maam mboolem naar yépp dégg maam gàdd gi kenn ci ñoom desu dégg maam ah, mu ànd kook ay rakkam ànd kook ñépp ñu daal di koy jébbal soxna si mu dem sëy tëgg naar yi sax wax dëgg yàlla waxoon naa ko joxoon naa kii sax euh, alaaji pour mu dugal ko moo nekk nii su ko defee ngeen seetaan ko dégg nga lii dégg maam ci céet gi la woon dégg nga waaw waaw xam naa ne nga ko lii de maam gis nga ñii waa gàdd gi la ñoom ñoo nekk nii wax dëgg yàlla ñoom euh, euh, mbooleem dégg maam euh, xarit ak soppe yi ñoom ñépp dégg maam ñëw nañu wax dëgg yàlla bis bi dégg maam mu nekk bis bu am solo dégg nga ndax askanu naar ñoom kenn ku nekk xam na ni dégg nga ki nga xam ne mooy Abdourahmane Tilala da ci taxawoon bu baax a baax dégg maam ci askanu naar yi dégg nga ba nga xam ne bi mu demee tamit doom ji di Abdou Aziz ak ki nga xam ne dégg mooy sëñ Fall ñu taxaw ci loolu dégg nga ba lu ñu xewle danañ ci taxaw ñuy ñaan si Abdourahmane Tilal kooku mooy Abdallah Jaxate mu ngi noonu ah di sama doom ni jaay di ku baax dégg nga ah, ñoom ñëpp ñoom Moussa dégg nga maam kenn ci ñoom desut dégg nga wax dëgg yàlla ah, bis bi daal mu nekk bis boo xam ne bi dégg nga ah bisu fierté la ndax nga xewle say mbokk yëpp ñëw loolu dara da koo gën te neex du dëkk waaw te ñun nag ay naar bu nu xewlee li ñuy def mooy tëgg tabal di tagg yonent bi sallallahu loolu la ñuy def kon su ko defee rek jërë ngeen jëf loolu daal lañ ci doon kii wane ko su ko defee dañoo ndax temps bi mu ngi jeex incha allah ñu dellusiwaat dégg maam ci ki nga xam ne euh, moom mooy sëñ boole. Mm-hmm. ngay da ngay tàggoo tàggoo bu dul tàggoo rek mm-hmm. dégg maam. Mm-hmm. <coughs> ak sax barke borom Touba ndeysaan dafa mel ni eh, kàddu yi sax mate na ko ndax jëwriñ li ñu waroon a tënk yëpp ci gàttal tënk na ko mm, waaye di fàttaliwaat rek programme bis bi comme sëriñ bi dogal na ni eh, ni ñu koy waxee njàngum xasida la ak eh, njàngum alxuraan kuréel waxtaane borom Touba ginnaaw bu ñu jullee fajar bi ba pare nuuru daareen comme ni mu ko waxee dinañ ko tàmbali buñ ko tàmbalee ba noppi ci waxtu 11h ba jëm 17h njàngum kuréel yi danañ fa ñëw mooy kuréel yi nga xamante ni 2 ba kuréel 3 dinañ ñëw barkeelu ba 17h. Euh, ci ngoon gi bu ñu dinañ tàmbali couleur yi nga xamante ni mooy couleur 1 yi ak kuréel 2 yi ba jëm ci fajar ga. dina am ci diggante bi njàngum raseer kon loolu mooy programme bis bi nga xam ne mooy bisu kennal borom tubaab bi te xam nga bisu murit moom dafay laaj ay xéewal xéwal yi dana fa yaatu lool ndax bisu borom Touba kon nag ñi ngi ciy woo mbokki taalibe yi nga xamante ni dañoo fare Thiès ak ñi nga xamante ni dañoo fare ci biti réew bi di ci woo mbokki taalibe yëpp ngir xamal leen ni bis bi amul kenn koo xamante ni jomb na ko pour mu teew ci ñu ngi ciy woo jullit yëpp di ci woo taalibe yëpp ngir ñu teewee bis booboo nga xamante ni dañ ci wane comme ni ko jëwriñ waxee màggal gi ko suñu borom màggal ñun ñu ci jéem di ci maam tële ci lool waaye nag bëgg mbokki taalibe yi ñëw ci biir pas-pas boobu ñu ñëw tàbbi ceeg ñun barke borom Touba. jërëjëf jërëjëf kon euh, kàddu kaa ngi noonu euh, su ko defee rek nañu xam ne bis bi daal dañ ko waajal bis bi daal bisu xasida la. bisu li kennal sëñ la liggéeyal sëñ Touba la te sëñ Touba moo wax ne inna lazina saaro li xidmati la diur was sa janna <coughs> kon góor ah, góorgóorlu te xam ne nag waaw chauffeur yi laay waxal mboolem chauffeur boo xam ne bii wala transporteur dégg nga lii ñu jëm dégg maam mooy ah, wax dëgg yàlla muy màggalu poroxaan oto yi nañu daw ndànk nañu wàññi paas yi leen ci jaamu yàlla ah, te liggéey ci soxna jaara mm. waaye dégg maam di daw dégg maam benn chauffeur nga bëgg a daw une semaine loo des maam ba def ay jéye loolu yàlla na ci yàlla musal yàlla na yàlla musal ci loolu lépp képp ku ciy dem yàlla na la yàlla musal dégg ma yàlla nañu dem ak jàmm del seeg jàmm te bu dem tamit nañ jaar soxna Asta doog a dem soxna maam jaar Bousso dégg nga kon di sant ñëpp di gërëm ñëpp dégg di wax ne itam nañu waajal Kazu Rajab gi ñëw kon su ko defee dégg nga ah, ki nga xam ne moom mooy eh, Ibrahima da ngay tàggoo ci xasida bu gàtt laa la wax ne mu gàtt ndax temps bi jeex na bismillah cant ñeel na la ahmadu bamba wàcc nga wàccaale ñépp am nga neema cant na la ahmadu bamba wàcc nga wàccaale ñépp am nga neema sëriñ tuuba jàmmi jàmm waral demam ca géeja xaadim rasulullahi ay mbàkke mooy neemal xadim isbaari jeewal moo waral màggalu Tuuba sëriñ bi ne màggalu Tuuba waaju ko màggal am palaas a ga isbaari jeewal ay lan ko jox médaille ma njool makka naa ko borom Tuuba doxal foo geesu gis ma isbaari jeewal ku xam mbootam ma doone sëriñ Tuuba di ras moroom tisbaari jeewal ca yow ma sabti la Sénégal am ndam lu rëy fa bayti tisbaari jeewal moo waral màggalu Tuuba sëriñ bi ne màggalu Tuuba waaju joray ak seq ngir di ko màggal màggalu Tuuba loo jëmban mu seq tisbaari jeewal moo waral Seex Ibrahima Faal Seex Ibrahima Faal Seex Ibra Faal Seex Ibra Faal di baabul muridiin yaaram bi naam faal Seex Ibrahima Faal nee na sama digg ak Seex Bamba weesu na junni bi at te kat booba yàlla binduloon maama Adama sàkkantuma bi bind doomi Adama Sëriñ Musaa Ka bari na ku toog Sëriñ Bamba ka di ko xool mu di la xool te gisoo ko Seex Ibra man dong maa gis Seex Bamba jërëjëf waa kay jërëjëf ah jërëjëf kon kooku mooy Ibrahima Ndiaye xasaay Kër Mor Ndiaye waa Kër Mor Ndiaye am ngeen jànkat waaye am nañu fa jànkat boo xam ne bii dégg mooy Modou Modou njaay moom tamit ku mën a jàng léegi ko ñoo koy siyaar bu baax waaye di siyaare siñ Fallou Ndiaye magam ah, dénga nga ak mbooleem waa dëkk ba yëpp daal dégg nga ñoo leen di siyaar waa Kër Mor Ndiaye gépp ñoom ñu nekk bu baax ndax moom tamit wax dëgg yàlla ah, keroog bi ñu tax bi ñu fa nekkee taxaw nañu taxawaay bu rafet dégg nga ci bis boobu dégg maam ñoom ñëpp kon ku fa ñëwoon rek xam naa ne Ibrahima sant na la. Mm-hmm. su ko defee xam naa ne damay jox ah, sëñ Aline. Ah, mu tàggoo tàggoo bu dul tàggoo rek. Mm-hmm. dégg maam su ko defee dégg maam ma daal tëj émission bi ndax daanaka waxtu yi jot dañu bëgg a mm-hmm. journal bi bëgg a ñëw. bisimilah waaw waaw ba tey ñu ñu santaat bu baax a baax. comme ni ko suñ boolee leeralee. waaw nga xam ni loolu mooy programme bis bi. nga programme bis bi ni mu ko waxee rek noonu lay tëddee mm-hmm. waaye liñ ci sof mooy euh, appel bi ñuy def mbooleem murit boo xam ne yaa ngi yeewu fii wala ngay daayira mm-hmm. baa ngay am di jàmb baa ngay soppe ni mu ko waxee bis bi sa bis la sëñ Tuubaa moo ko moom te bokk kenn moom gi ko moom tamit teg nañ ko ci kaw ndigal muy ko fi toogal borom Tuubaa mm-hmm. ba pare boole ci dox ci ànd ak mbokki bépp mbokki taalibe boo xam ne yaa ngi yeewu fii nga xam ne daayira nga wala am di jàmm nga baa soppe nga baa murit nga baa jullit nga baa chrétien nga sax baa atte nga sax woo nañ la ci bis bi ndax ni ko boole waxee bis boobu jombul ku yàlla bind mm-hmm. ndax loolu suñu borom moo ko dogal ci jëmmi borom Tuubaa mm-hmm. kon ñuy fàttali bis bi tamit ñetti fan la bi ci njëkk mooy alxames te waa kër Cheikh karaa Kara Mbacke ndóoree nii di ko taxawee muy seen guddi ajuma yi mm-hmm. kooku tamit ñu ngi ciy woote ci mboolem koo xam ne nii sa yaakaar génnul nóoree ni génnul borom daaru almuxti woo nañ la ci guddi ajuma googu mu tombeek le 9 février le 10 bi tamit ñu ngi woote ni képp koo xam ne zikrullahi ngay def muy dangay ngay yëkkati turu yàlla wala nga yaakaar Cheikh Ibrahima Fall bis boobu na nga xam ni woon nañ la ci muy bisub ak akbar waa loo yéen di Madina Fall suñ Cheikh Lo di ko taxawee ak mboolem Baye Fall yi le 10 nag moo ëmb loolu lépp muy leen doon dajale ci ñaari fan yooyu yëpp la ñuy jóor ci ñetti fan yi muy muy tàmbali ci suba gi jëmaat ba ci fajar gi kon loolu mooy bis kon ñu ngi koy woote ci mbokki taalibe yëpp di ziar mboolem kilifa goo xam ne yaa ngi ci gox bi moo xam ñu tudd nañ la moo xam suñu xel fàttu ko wala ñu tudd la wala ñu ñàkk laa tudd na nga xam ni amoon nañ yéen agsi ba ci yow ziar la yaatal la bis bi ndax xam nañ sa yéene sa diggante ak sëñ Tuubaa ngir bis bi barke borom Tuubaa kon bis baa ngi noonu ñu ngi koy woote mu nekk le 11 février rond-point Normandie Grand Thiès barke borom Tuubaa ok kon jërëjëf ah sëñ Aline leeral nga mbir mi damaa wax bis bu ñu wootee dégg maam bu ne woote bis kennal sëñ Tuubaa moo ci gën dara gënu ndax seen Tuubaa day day kenn bokkul ak lenn kenn fenn waaw mooy ki nga xam ne kii bu fekkee ne dégg maam teraanga rek li ko ci yàlla jox jox ko kenn takrim rabbal alamin karama kulliyati fa sirtu faxra kurama nee na tedd nag suñu borom teral na sama lépp ba mujj naa dégg maam képp kuy borom teraanga man ngay teddee man mm. man ngay tiitaroo man Xaadimu Rasuul bu dee xam kenn ku ne wala daraja daf ne daraja tahluwat lay seen xafat mm. man na xam ne war a xuf di képp koo xam ne nee na ku sama sama dara day yëkkatiku te suufe ku ma bëgg a suufee da ngay suufe te dootoo yëkkatiku dégg xam ne njariñ moo jëriñ ñëpp dégg nafa ani naafu wa nafa ani jëriñ na ma naa fi ak jëriñat yi wa ci man yàlla di jëriñ ku muy jëriñ waaye yemul ci loolu dafa ne nafa ani naafiwu jasabali xal ba kulla faisin fan jasaba nafa ani jëriñ na ma naa fi ak jëriñat yi waaye ñu dil na ma xool képp koo xam ne ki dégg nga day aji texe kon su ko defee ah sant nañu dégg maam sëñ Alioune Souaré waaye noo ngi sant ki nga xam ne kii mooy sëñ Bolle di sant sëñ Ibrahima Xasaay dégg maam Njaay waaye di sant dégg maam mboolem ñu seetaan di wax ne nag yéen waa Amérique dégg nga Ibrahima Dramé ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci liggéey bu rafet bi ngeen di liggéeyal sëñ Touba dégg nga noonu la ciy siyaare bu baax a baax noonu la ñu siyaare dégg maam Cheikh Awa Balla Mbacke si ca France dégg maam noonu la ñu siyaare dégg maam ki nga xam ne mooy Saliou Babou dégg nga ci Japon waaye noonu la ñu siyaare dégg maam ki nga xam ne kii dégg nga mooy Soxna Faat si dégg nga ca France waaye ak ki nga xam ne mooy Jibi Ba ci Italie noonu la ñuy siyaare dégg maam mboolem koo xam ne kii rek dégg maam yaa ngi seetaan di ñaan yàlla na yàlla yokk wér gi ak man ge kàttan gi kon dégg nga wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu incha allah ñu dem ci poroxaan ci jàmm ak salaam del seeg jàmm yàlla na yàlla defal jàmm sa dégg nga jërë ngeen jëfati يقول عبد